yoonu yàlla ak yàlla bi ñu ko liggéeyee. ngeen ñëw fa dafa jàkkaarloo boo xamante ni daanaka bi ngeen yegsee yow Fils de Balla ñëpp a fàtte combat yi fa amoon ndax ànd ngeen fi ambiance boo xamante ni da ñëpp daw jëm ci yéen lan la woon sa diggante yow ak ak Fils waa làmb la rek ndax moom dañoo xas-xasloo dafa taxaw wax man ma taxaw wax mu ne bu làmb jaa dina ma duma ma ne ko dinaa la duma ku nekk nag li nga diggoon sa morom saa bu ngeen gisantee rek loolu ngay jéem a imposer. léegi nag ñëpp xam nañ ne làmb ji am na ampleur léegi bu ñu dajee dafa war a neex ndax moom xam naa ni parewul pour may ma dara man nit xalaatuma ko may lu tolloog tarafatal ay nii. nee na nee na sa sëriñ lañ tuddee làmb ji sa sëriñ moo tëggu combat bi su la neexee ñu jël làmb ji andi ko ba sa biir kër sëriñ ngeen bëree ko fi yéen loolu bu ko waxee moom waxu waxul lu am. yàlla xam na ni loolu bu ko waxee waxul lu am. mais moom lañ tuddee sa sëriñ lañ tuddee drapeau bi. comme comme comme fi muy waxee noonu waxul lu am xam nga nit ki. yow yaay am sa suwaawu bopp promoteur bi mooy am suwaawu def lu ko neex. ndax man bu ma soñoon làmb jooju du doon drapeau sëñ bi ndax wax ji dafa bari moom fi mu toll nii dafa jël loolu daf ko prétexte bëgg ci man maa ngi gis sax day mel ni kuy gaaruwaale Assane di di ci wax ay détails yoo xamante ne man Assane maa ngi toog devant tous les publics devant tous les sénégalais yëpp ngir yàlla drapeau boobu boo ko mënee changé jox ko keneen man dina ma arrangé loolu man maa ko ñaan. mais est ce que nekkul lim nekk sa drapeau sëñ est ce nekkul dafay xaw a diis est que nekkul dafay xaw a diis. bëri naa drapeau am ci ndam di ci sant yàlla mais xam nga lu tax ma wax loolu booy bi dafa dem ba bëgg a jël loolu def ko prétexte. di wër fu nekk di wax ay drapeau bi sëñ bi lañ ko tuddee ak sëñ bi nangam mais man pour ma bañ a sonal sëñ bi wala ñu yaakaar ni sëñ bi da ciy def loo xamante ne demeewul noonu wala da ciy jàppoo wala da ci dina ci jàpp parce que tamit parce que tamit taalibeem nga ah, ñu tuddee ko yëf loo xamante ni ci nga yëngu dina ci jàpp kooku xam nga du combat kase chaque jour que jëfee mu ngi ñuy jàppale kon kon bokkul ak combat boo xamante ne dafa war a ñëw ñu tuddee ko ko ñàkkul ni sax moom man li may ciy dund moom pression mën naa gën a ëpp ci moom ndax man tuddee nañ ko làmb man ma ko baree ko te boobu teewu ko mu teeweewu ko mu ngi ko fekk mu voyage te dégg na ci lu ne kon man pour ma noppal ko moom moom na taxawee position wu yemale ñëpp rek Assane Ndiaye mu dimbalee ma ci loolu bu mënee jël dara. non du question de noppal man li may noppal mooy maa moom ñu bëree ci jàmm ma dem xooli leneen. loolu mooy li ma noppal man awma prection ci benn côté bu ko neexoon drapeau bi nañ ko tuddee moom ku ko neex. comme moom nee na sama sëriñ lañ ko tuddee nañ ko dindi ci sama sëriñ moom ñu xool moom ku ko neex ku ko doy ñu tuddee ko drapeau bi ba xam man dinaa ci am pression wala dinaa ci am problème wala dara nekkuma sax ci loolu noonu affaire bi du affaire de boo xam affaire affaire de lan la affaire de am sañ-sañ liggéey gëm sa bopp pare pour dëggal sa bopp mais affaire bi du ay wax nekk fii di tararari de nit ñi tollatuñ sax foofu noonu ko quoi. Mhm.